suñ mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi nekk léegi ba Ndioum nekk ak ki nga xamante ni encore moom mooy Navel Thiam doon responsable politique bu APR Yaakaar doon candidat à la mairie de Ndioum Navel Thiam ñoo ngi lay bàyyi nga nuyu ak suñu téléspectateurs yi si plateau spécial yi nga xamante ni ñoo koy def sa dëkk Ndioum waaw euh, maa ngi leen di jaajëfal bu baax vraiment si plateau spécial bu ñuy def mm-hmm. ak euh, vraiment di leen di jaajëfal mm-hmm. di wone sama contentement de ce fait que ngeen déplacé wu Dakar ba fii ak période bi c'est pas évident donc euh, maa ngi leen di jaajëfal di nuyu askan njub nag donc euh, tey Nawel Thiam boobu mu ne toll fu mu toll tey wala am lu mu am tey ginnaaw yàlla njub la sama lépp sama carrière adduna yëpp fii laa ko def donc aw mu seen fay maa ngi leen di nuyu donc euh, di jiital nuyo bi sama ñaari waajur di si topp suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi ñi nga xamante ni ñu ngi fi ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal di leen di nuyu ñoom ñëpp. Mm-hmm. fii ñu toog euh, ñoo ngi fàttali nit ñi mooy pom boo xamante ni ñoo ngi nekk ak euh, quelques kilomètres de Alwar suñ fi toogee dañuy ziar wala yu boobu di El Hadji Omar Foutiyou Tall ci turu Equivox TV ak ñu ñu àndal ñëpp mais suñ duggee si waxtaan bi pont bii ñu toog yaakaar naa navel ba mu paree yàggul est que mën nga ñu ñëwal tuuti si pont bii ñu toog. waa pont bi di toog euh, ñu ngi sant yàlla bu baax parce que pont bi depuis suñu maam yi maamaat euh, lañ doon laajtee njum na am pont donc euh, amul lu ñu si deful ba ñun si temps Ablaye Wade mosoon nañu vraiment mosoon nañu yóbbu à la brigade gendarmerie mhm. donc Euh, ñu arrêté ni et puis li ñu doon laajte mooy que. nañ jum am pon kon fii dafa métti woon trop ci askan wi surtout si nawet euh, ñun fii ay gaal ak euh, bac moo fi nekkoon. Mhm. yàlla defal ñu sutura nag. Mhm. vraiment ba ñu am. tey pont et pon pont bi ginnaaw yàlla ak yonente bi. Mhm. président Macky Sall moo teg xeer bi. à l'époque avec le ministre Abdoul Mbaye. nekkoon premier ministre mu teg xeer mi. deux ans après président Macky ñëw inauguré ko fii fii ñëw. donc depuis 74 ans population Ndioum ñu ngi doon réclamer pont de Ndioum si avec président Macky Sall donc xam nga moom moom euh, nitu euh, wërsëg la. mais tey soo waxee financement wax li nga xamante ni mooy entreprendre parce que si ñu définir politique moom mooy la gestion de la cité quoi nit ñi mën a xëy mën a jàngi mën a faju mën a wer est-ce que jarul yéen ñi nga xamante ni yéen ay acteurs politiques ngeen basculer la politique mu dem ci affaire liggéey. dem ci affaire infrastructure doon discours boo xamante ni c'est un discours véridique en tant que jeune Navel ban taxawaay nga am ci loolu ci biir Ndioum. nekkul politique promesse politique politicienne quoi. ban taxawaay nga ci am xam nga Olof Ndiaye wax. Euh, mhm. weddi gis bokk ci. Mhm. ça fait deux jours ñu ngi ci biir dëkk bi. Mhm. donc gis nañ xale yi gis nañ mag yi gis nañ ñëpp. et ñu ngi euh, jot a gis yëpp. déglu nga leen population bi yéen def seen micro. Euh, ci biir territoire dugg ci biir dëkk bi. dem marché bi dem ñëpp di laajte nit ñi. Mhm. gis nga tricherie moo baaxul. Mhm. man nekkuma si yooyu. Mhm. du ma ko def. li nga xamante ni tey man sama politique bu dee nii sama politique voyé ma kese. c'est pas la peine man sama politique damay taxaw pour jàppale sama askan. damay taxaw pour jàppale son excellence président Macky Sall. donc def nañu ay action yi nga xam ne yu mucc ayib. tey loolu moo tax population bi jóg boo gisee tey euh, ñu ngi nii tey di di ñu wone dañ may jàppale. di taxawu ma mhm. fépp mhm. muy nekk xale yi mu nekk jeunes yi mu nekk paa yi mu nekk ñëpp mhm. donc loolu lu ko waral mooy que euh, dañ ko gis si man et man tamit il faut mu rendu leen clé boobu donc parce que c' est des jeunes c' est des gars yi nga xamante ni mënuma leen fay donc euh, ñu ngi koy def ah ñu ngi def vraiment ay action yi nga xamante ni am na ay xale yi nga xam ne am nañu seen contrat di liggéey ñëpp mënuñu amandoo xëy boobu nekk si administration mhm. mais am na ñi nga xam ne dañuy am seen étude de projet mhm. ñu jàppale leen si DER wala si yeneen mhm. ñu am seen financement di daan seen doole liggéey léegi Navel Thiam tey sëñ ni nga xamante ñooy seen naataango nekk ci biir coalition benn bokk yaakaar soo amoon benn kàddu boo leen ni wax pour ngeen toog waxtaan parce que opposition sénégalaise dajaloo leen ba doon benn de à part Bougane Gueye bi nga xamante ni moom moo ko quitté tey te ñoo ngi wax naan Fouta benn fief Macky Sall la su ngeen caaxaanee ba ñàkk Fouta est-ce que di ngeen préparer li nga xamante ni mooy élection 2024 surtout sa dëkk Ndioum su ngeen caaxaanee ba opposition gagné ko. donc ce serait yooyu bu naree am. Mm-hmm. est-ce que seen euh, féewaloo bi du tax opposition bi gagné. Euh, xam nga. Mm-hmm. tey mooy li may wax à chaque fois rek. Mm-hmm. ñun lu ñu war a mën a def. mooy que tey ñu taxaw. pour vraiment ñun en tant que acteur politique. ñu jéem a nekk benn. gis nga nekk benn bi. mais nekk benn bi xam nga da nga wax mais soo buggee dem alwaar da ngay fay prix pour dem soo doo buggee doon benn ak ñi nga xamante ni ñoo fi nekk il faut nga def effort yu ko war est-ce que yow en tant que jeune yow yaa ngi dem per ces efforts là pour ngeen doon benn. mais parce que ñun euh, ñun si loolu mooy suñu dundin. Mhm. nan la ñu mën a def. Mhm. parce que xam nga tey. Mhm. nekk benn bi. mooy avantage yu benn Bokk Yaakaar mooy avantage président Macky Sall. parce que. mais yow est-ce que oo ñu fi nekk ku si mel ni Cheikh Omar Anne ak keneen ak keneen pour ngeen waxtaan. donc euh, xam naa ni yàggatul dara. gars yi ñu nekk si démarche boobu xam nga fu mu toll ni il faut que ku nekk yaa ngi wone. sa bopp. mais continué ngeen si opposition bi nu mu taxawee euh, léegi. Euh, opposition mhm. dañ si war a bàyyi xel xam opposition. Mhm. kenn waru leen man en tant que acteur politique. parce que mhm. jaar naa si opposition. dañ ma doon xeeb. ma am lu ma am ma indi Macky la au pouvoir. donc xeeb opposition lu jara lu grave la. te division yi nekk fii di juddu affaire yooyu noonu ma na leen yóbbu li si li nga xamante ni ah, moom mooy. si defet loolu moo tax nag. ñu war a fexe. ñu war a fexe. lan la ñu mun a def. Mhm. lu ñu wootee bu dee dëgg rek si ñun. Mhm. Euh, dëkk bi moo ñu jaral. Mhm. bu dee ni dëgg la rek si ñun. Euh, président Macky sal moo ñu jaral. war nañu mun a nekk benn nekk benn bi nag. man de Navel Thiam tey je le plus jeune. Euh, si ñi def politique département bi yëpp. waxuma la nag fii si Ndioum donc lu tax. du ñu nekk benn. nag maa ngi ñaan. benn appel yi nga xamante ni tous les responsables ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir dëkk bi. Mhm. maa ngi leen di ñaan ñi nga xamante ni ñoo nekk ensemble di liggéey si parti Benno Bokk Yaakaar ñuy liggéey si à côté du président Macky ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan nan ñu mun a def. Mhm. pour nekk benn am majorité. léegi li nga xamante ni aussi ngeen am majorité eggali ngeen am majorité si élection yi di ñëw ngeen gagné. ñu am majorité si élection yi. parce que mhm. am am am am majorité. mooy moo ñu moo ñu ñu am vraiment li nga xamante ni tey. pour préparer seen troisième mandat après 2024. moi je parle pas de de. troisième non su ngeen amee majorité élection locale yi c'est-à-dire su ngeen. su ngeen ko perdee c'est-à-dire 2024 du ngeen dem. xam nga 2024 jotagul. Mhm. ñu fu ñu nekk nii ñu ngi mhm. si. non élection yi enjeu la pour ñu préparer 2024. non ma ne. non képp ki lire ma ne président Macky Sall mu mun a eggale mandat bi si jàmm. Mhm. pour mu mun ko liggéey comme ni mu ko waree. il faut que mu am majorité si locale yi. Mhm. pour mu am liggéey. Euh, mais seen féewaloo yi du ko ko jox. non dama ne loolu loolu loolu moom euh, suñu loxo borom la. léegi après léegi quinze yi nga xamante ni moom la ñu a joxe comme caution. Mhm. te élection locale amutoon caution. Mhm. soo bëggee dem tamit quinze mi trente millions. xam nga loolu ñu nekk au pouvoir dina leen yomb. est-ce que liy gars di wax ne loolu ce n'est pas une élection des richards. est que yow tegoo ko loolu. non xam nga élection risque quoi. loolu ay waxu opposant la. mais 15 millions mais 15 millions am nga kenn waxul ku soxla rek. Mhm. Euh, da ngay indi 15 millions. Mhm. affaire bi du noonu lay mhm. affaire bi par par la. récépissé bu nekk am na caution bu ñu la wax. mais te boobu du bi caution bi nga xam ni. xaalis bi ngay def nga ñàkk ko caution la ñu wax. dina am hmm. li dem si média yi li euh, gouvernement war a kii mais am na li nga xam ne c'est remboursable au niveau de caisse de dépôt de la consignation hmm. donc loolu euh, benn c'est pas quinze millions ou vingt millions moo am important man ce qui est important hmm. benn booy wootee nii bëgg nga dara amal dara d'abord amal dara c'est-à-dire que amal benn popularité sa ginnaaw ñaareel bi nga xam fi ngay laajte est-ce que buñ la ko joxee euh, est-ce yaa ngi euh, foofu nga dëkk est-ce que di nga si taxaw est-ce di ngeen di nga am seen jot. Mhm. bu dee ni dañ lay jox maire nga nekk États-Unis wala New York. Mhm. wala feneen. loolu Cheikh Omar ngay Cheikh Omar an ngay sànni xeer. man sànni man waxuma tur. xam fekkee dañ la def maire yaakaar naa Cheikh Omar an moom moo nekk maire ba pare dem fi nga xamante moom mooy vacances New York. xam nga ma ne. Mhm. man waxuma la ku dem vacances ma ne la bu fekkee. dañ la def maire nga dem New York nga wax. xam ma mhm. buñ la fekkee dañ la jox maire. Mhm. benn. da nga war a am jotu population bi. nga nekk seen wet. nga leen di waxtaaneel. bu ñu amee jàpp nga ne Sénégal Sénégal cumul de fonction daf koy tardel bu ñu amee buñu ñu amee bu ñu amee yenn ki non dañuy tardel euh, prise de confiance parce que loolu Euh, munoo munoo gérer yenn euh, yenn kii yi mhm. yenn euh, direction wala yenn avantage yi en même temps nga mun a gérer sa gox sa mairie donc damaa jàpp ni tey ku mënta nekk. Navel Thiam yaa ngi attends dama ne Navel attends nekk foo xamante ni ëllëg mën neen la waar. Ah, ñu bari ñoo xamante ni bokk nañ si coalition benn Bokk Yaakaar. Uh-huh. ñii ministre leen ñii directeur leen. Uh-huh. te suñ demee war a doon candidat seen mairie dëkk yow jàpp nga ne en tant que membre de l'APR yaakaar loolu cumul de fonction la te loolu dafa arrangé wul gox bi loolu nga jàpp yow. man dama sa analyse non yow yaa ko wax sa analyse. ma mhm. man sama analyse c'est très clair. non fi ma dem. Mhm. si rajo ba ma dem télévision ba ma dem. Mhm. li may wax c'est très clair. ma ne ma jàpp. boo la falee sa gox. da nga am. Euh, temps pour jot. pour après wax nga tamit nga ne cumul de fonction bi. non cumul dafay fonction da lay tardel day tardel dire que. xam nga mairie soo xasee ba yow yàlla yàlla su defee maire da ngay. mais damay am damay ñaan disponibilité au niveau de sama de nga xam ni damay dund fii. xam man fii laa juddoo fii laa def sama lépp. donc mhm. man dund fii wala nekk fii sama me dérange pas du tout. Mhm. man fii xam. Mm-hmm. xaw ma bu nekkoon nii benn njuddi jéeri bu jógee dakaar wala ak yooyu laa mm-hmm. d'accord mais man fii laa sama lépp fii la mm-hmm. samay waajur ñu ngi nii gis nga leen samay lépp ñu ngi fii Navel jërëjëf ñoo si sama lépp sama dañ lay bàyyi nga tàggatoo si plateau spécial bi nga xamante ni moom lañ doon def fii sa dëkk Ndioum di wax ne carrément bi mooy suñ troisième toog ñu toog di waxtaan ak yow nga doon nit ku disponible pour wax ak les médias doon nit ku disponible aussi si sa dëkk te fépp foo romb lu ñu seetlu si yow mooy xale lu mu tuuti tuuti da ngay taxaw wax ak moom nuyoo affaire yooyu noonu ñoo ngi la siy sant di la si gërëm di la bàyyi nga tàggatoo. waaw di di leen jaajëfal bu baax a baax. Mhm. vraiment aw ma seen fay. Mhm. vraiment aw ma seen fay. Euh, et yombul. Mhm. Euh, li ngay ma defaral nii. Euh, yoruma seen fay mënuma seen fay mënuma mënuma leen fay donc di leen di leen di jaajëfal bu baax a baax mhm. di jaajëfal PDG monsieur Seck mhm. di jaajëfal euh, Babacar di jaajëfal euh, ñoom El Hadj ak ñëpp mhm. vraiment aw ma seen fay dëgg yàlla euh, li ma mënta wax rek mooy que ni tey population Ndioum en tant que tel naxaate bi moo fi war a jeex nit ñi nañu xam lu ñu bëgg nit ñi nañu xam tey ñun ñëpp dañu war a nekk benn pour intérêt population bi en tant que tel. Mhm. intérêt population bi nag mooy que ñun waa waa waa waa Fuuta. Mhm. ñun waa Njuum en tant que tel dañu mhm. war a retrouver wu dañu war a waxtaana dañu war a xool solution pour na la ñu mun a parce que tey Njuum am na avantage yu bëri. am nañu suuf am nañu naaj. am nañu ndox. munoo am possibilité yow yëpp nag. nga am avantage pour mën a liggéey et puis nga am ressources yi ñu war a laaj yëpp mairie Ndioum rek ngay gis tant que fayul trésor bu département de Podor. Mhm. département Podor du mën a fay personnel am. Mhm. donc loolu c' est chose de très important. très important donc loolu très important au niveau euh, am possibilité boobu. Mhm. da nga war a loolu. nga xam ni mairie du caaxaan. il faut dëgg-dëgg temps la. il faut ñu taxaw ci ñu jàpp si. ñu wane ni vraiment. Euh, naxaate waru fi am mhm. man li ma gëm mooy yàlla bu ma denkee dëkk bi mhm. damay am disponibilité disponibilité fi ma nekk mhm. ma ñëw nekk ak gox bi nekk ak ñoom dund ak ñoom parce que loolu mooy réalité loolu mooy dëgg ba ma génnee fi rek day fekk ma ut ay partenaire Dakar wala ut ay partenaire extérieur indiwaat lépp loo am nga indi ko si dëkk bi loolu mooy te xam naa dina amaa yeneen numéro pour waxtaan si sa programme aussi waxtaan ci li nga xamante ni moom nga yéene askan yu baax a ah bien sûr loolu vraiment donc euh, loolu kay c'est pas moom c'est on est obligé de le faire et puis en même temps encore di jaajëfal bu baax mhm. ñi ñi nga xamante ni ñoo taxawal Nawel Thiam mhm. mooy la base politique Nawel Thiam ñi nga xam ni ñu jugee Dakar ñu nekk fi si dëkk bi mhm. aw ma seen fay bu euh, afaire bi fe baaxee lépp lu si war lépp lu si kii mooy suñu slogan yi suñu kii yëp boo gisee ñu def yi yëpp vraiment ça c'est ñoom la ak yeneen ak yeneen yi nga xam ni ñoom lii yëpp ñoom la xam nga lii c'est des slogans yi nga xamante ni c'est très important ça signifie quoi xam nga lii mo mhm. njum subi on a en pulaar mhm. def nañ ko en français mhm. def nañ ko si wolof mo njum subi mooy ki njum tànn le choix de njum kun ku njum tànn loo bëgg wax non ñoom ñoom non ma xool ma xool voilà ñu jox suñ caméraman mu jëlal ñu ko ah lii ñoom ñoo ko def. Mhm. loo ko njum si bi mooy ku njum tànn. voilà ku njum tànn. Mhm. donc euh, amul seen fay la base politique. mais yow gëm nga si biir xool na njum yow la tànn. Euh, on verra bien bu ñu mayoon moo ngi affaire affaire bi presque euh, de li si des baritul. Mhm. dans quelques mois la ñu jëm si élection. on verra les conséquences. jërëjëf ñoo ngi tàggatoo si émission di wax ne Equivox TV moo déplacé woo Dakar ba fii di wax ne partout au niveau national si Sénégal. fépp foo xamante ni rek nit soxla nañu fa pour oñu di leen fa dem liggéey jël laa bonne information jox ko les sénégalais doon na boîte boo xamante ni boîte leader la di wax suñ gars yi ñu ñuy topp ci commentaire yi ci laay yeeg ci lépp pour fépp foo xamante ni rek war neen fa mën a taxaw bëggal leen ñu taxaw bëggal leen di gërëm di sant ki nga xamante ni moom mooy Balde suñ technicien dëkku Mbour ni ku baax suñ directeur général El Hadj yow tamit ñoo ngi lay sant di la gërëm bu baax ak yi nga xamante ni ñoo nekk Dakar commencé ko si Modou Seck Habib ak Modou Khoule à très bientôt incha allah